jëf sama gars yi euh, nañu déglu Adji saar ak euh, MC Niass comprendre nga li mu lay wax. gannaaw xam na ne moom moo tëgg lépp. moom moo tëgg lépp. léegi fu mu nekk nii lu mu mën ci lay baab. da baab naan la léegi wax naa la fii trois mois yàggatul. dégg nga ko sama doom. dama la jàpp sama doom koy wax. waaw ndax daf ñoo waaw waaw liñ def yëpp li na ne kon benn waa bu tudd euh, Nazir Cissé Nazir Cissé Nazir Cissé dem leen ngeen abonné ci moom am na solo moom moo ñu indil audio bi xaar leen audio bi des na audio bi des na xaar leen xaar leen ma tegaatal leen audio bi ab ma frank déglu sa après ngay xol sa après ngay xol déglu allo allo. allo. qu'est-ce qu'il y a tu dors. qu'est-ce qu'il y a tu dors. je dors pas. non je dors pas. Hmm. naka fële. naka fële. point 1. point 1. mi ngi fii rek di sedd. mi ngi fi rek di sedd. waaw fan yii dafa sedd nee na foofu neexul voilà kon gars yi audio bi ngeen baal ma bu fekkee ne leerul trop mais mën naa leen wax lan la wax ak li tax ma ma def ci euh, di vidéo parce que euh, euh, mi ngi naan ko audio bi MC Niass mooy wax aji Sarr bañ a wax est-ce que xam ngeen lan moo tax Adji Sarr bañ a wax Adji Sarr li tax mu bañ a wax mooy ne Euh, L'audio, audio bi après ba enregistré Mamour Diallo la ba enregistré Mamour Diallo 18 minutes légui MC Niass bu wax ak mom Adji ragal parce que Adji sar enregistré na Mamour Diallo envoyé na ko MC Niass doga xamné nak erreur parce que MC Niass légui téye complot Waouh! parce que nan lañu xamé né après la parce que li MC Niass doon wax mom la Mamour Diallo ak Adji Sarr doon wax Mamour Diallo naan ko sama la considérer comme sama dom diko wax il faut nga xaar fi 3 mois il faut que procès am est-ce que bul yakamti légui nak MC Niass mu ngi naan ko yow li dafa wara nek sa sa kay affaire Adji Sarr dafa wara nek nekk sa kay pour nga tekki comprendre nga bul nangu Mamour Diallo di la paap mais on a vu que Adji Sarr est hésitante

ñoo bokkoon classe wax naa ko plusieurs fois tuddee naa ko doom liggéey naa ak moom tout ça mais après laa ko bàyyi bàyyi Macky Sall bàyyiwuma Mamour Diallo mais ma Macky Sall laa bàyyi liggéeyal na ko man bàyyi naa naa maa ngi dem nekk njaago Sonko te ñëpp xam nañ ne Sonko ak Mamour Diallo dañoo am problème mais man dëgg bi laay topp te dëgg bi mooy ne lii complot la te MC Niass bi nga naan ko complot la Mamour Diallo moo tëgg lépp Adji Sarr weddiwul Adji Sarr mënoon na ko non du complot du complot c'est vrai que Ousmane Sonko def na ma li def na ma la mais Adji Sarr waxul kon MC Niass loolu la bëggoon dafa bëggoon wax wax Adji Sarr ne ah, yëfi complot gars Mr Mister la gis ngeen ma maa ngi nii depuis les États-Unis dama ne côte ouest lay doon maa ngi nii côte ouest dama fàtte def sama présentation léegi ah, ah, li ñuy wax rek mooy ne audio yi ñu ngi génn benn par benn mais ñun li ñuy wax mooy audio yi dafa war a génn une bonne fois pour toutes comme ça lépp leer mais ñu am tuuti baax na ñu am tuuti baax na pour wane ne complot la xam jàlloo xëy na bu déggee lii ndeysaan dina jël décision décision bi mu war a jël mooy lan non lieu loolu tam il faut ma wax ci tuuti waaw lan moo tax maam euh, Maham Diallo euh, kenn déggatu ko xëy na buggul dem procès lan moo tax euh, Gabriel kan kenn déggatu ko ñi ngi naan dafa daw Amérique lan moo tax maître El Hadj kenn déggutu ko parce que audio bi Adji Sarr dafa tudd maître El Hadj audio bi aji Sarr dafa tudd am na ku sant kan avocat la audio bi aji Sarr dafa tudd Ngom ah, Farba Ngom ak rakku ba Ngom audio Adji Sarr dafa tudd ADD dafa tudd Mame Boye Diao audio bi dafa tudd xalifa Ahmed Niass audio bi dafa tudd benn ku sant Diagne ojo bi tudd na sax ba wax euh, benn euh, euh, frère bu Aïssatou Diop Fall mi nga xam ne léegi dafa am problème ak TFM ba dafa mel lañ quoi dugal ci frigo xam nga audio boobu audio boobu ñi mu tudd ñëpp a bëri te Adji li mu ci wax dafa leer mooy ne ñooñu ñëpp tëdd Adji Sarr na tëdd na ak ñoom waaw loolu nag même bu dee du dëkk sax parce que Adji Sarr dafa après wax na ci beneen ojo mu ne Mamour Diallo dafa bëggoon capp ci bëtu gaynde bi Mamour capp na wala cappul <laughs> c'est ça la question yow boo nee Mamour dafa bëgg capp mooy xëy na kon cappul mais est-ce que ba muy wax loolu boobu boobu fekk na euh, euh, ak audio bi mu mujj wax ne ñoom ñëpp tëdd na ak ñoom ban moo ci njëkk kenn xamul Adji Sarr day wax dëgg wala wala day fen kenn xamul ndax day ndax tëdd naa ak ñoom tëdd naa ñoom ah euh, Cheikh Bara Ndiaye nga xam dama naan jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye chaque jour ndax patriote la nee na am na ay photo Adji Sarr képp ku ñëw am na ay photo ci yow am xeyna i am na aussi ay vidéo yoy bo len ko amee lan motax do doo ko génnee bo leen ko ma xam Diallo gis ko ndaysane yëf yi yomb mais nak instant yi lan motax gouvernement Macky Sall di tëb di dal procureur di profiter di di di di wax euh nu mu tuddati euh, procès la bëgg xeyna c'est parce que ma dañu bëgg forcer xam Diallo pour mu def procès xam Diallo nak mom deful procès xeyna xeyna bëggul def procès mais bu génnee ne def def procès bu ñu bëtt

gis nga nit dof nu mu génn ni mu saaga wax wax yëpp te nit dof si ci Sonko la bokk te dañ ñoon waa Sonko yi duñu saaga ñun patriote duñu saaga mais nit dof euh, xol bi moo fees nga dégg karam Xrum Xax mu ne du def contrôle judiciaire nit ñi ñu ngi commencé fippu Mollah Morgun mi nga xam dañoo taal euh, këram ah Babacar Touré di wax tentative d' incendie Babacar Touré loolu du tentative tentative moom dañ doon jéem a essayé essayé wuñu dañoo taal kër Mollah Morgun gis nañu pono yi ñan ñoo ko taal nag kenn mënul xam ndax sëriñ taalibe sëriñ la kenn mënul xam ndax euh, euh, comme ni ñu ko waxee naan ministre de l' intérieur kenn mënu ko xam parce que Mollah Morgun moom bàyyiwul kenn bàyyiwul sëriñ parce que dafa attaqué sëriñ euh, Ahmed Khalifa Niass si suba si ñu taal këram waxuma ne Ahmed Khalifa ñas la mais laa tegal nañu benn audio yaayu moo laa di wax ne waa taalibe ay ñu ne ay taalibe ci Abdou Karim Serigne Abdou Karim ñoo ne dinañ fa ñew dinañ la ray kon ken xamul kan moo taal kër mo gën mais est ce que loolu dafa tax mo gën daw parce que Mollah dafa am ben way bu tuddu xawma briquet almet essence xawma pneu tal degg na mo waxat ko c'est vrai que Mollah léegi wañi na wax waxu tal ji ji ji na wax waxu tal keur jambour parce que fi tamit nañ waxante deug yeen da ngeen am euh, ay mbokk Senegal euh, Sénégal kon képp ku fi wax waxu tal gaay legui dañ nan ah kon bu ñii bu ñu taalee seen kër yi rek ndéssan dañuy noppi wax ji yëpp loolu la mais Macky Sall li wara comprendre moy ak ak sëriñ yi ak ku mënti doon taalibi sëriñ yi di tal kër jamm bu len jox boy xel pour ñu boyal Sénégal ñu Sénégal ñu mu tàkk jëppee Sénégal wax ji yëpp lu ko guddal lu ko gàttal Mansour Faye mu ngi génn melni ne Macky Sall daf ko bëgg sacrifier muy def ay conférence de presse sank ma ngi woon ci conférence de presse ba di commenter

jaral nañu suñu bakkan bu fekke ne jaral na Ousmane Sonko bakkanam ndax xex bo gis da fay am général té Ousmane Sonko genn na mu ne jaral nako ko bakkanam ñun surtout ñun ñi nek extérieur nga xamné ñun euh dund nañu lu neex ba paré té gis nga ci lu neex lañu nek waaw sacrifice bu am ñun ñi nek ci ci ci réseau yi ñun ñoo wara a Sénégal mais dafa yomb tamit Mollah Morgun dafa yomb Ousmane Tounkara dafa yomb euh Kayz Fof ñu nek fi rek di wax man de dellu won na Sénégal buñ may japp nañ may japp man waxuma ñu rey Macky Sall waxuma ñu rey benn Mamour Diallo waxuma ñu rey kenn mais liñ leen di wax mooy troisième mandat moom du am ñun mën nañ leen baal lépp ko sax wax na ko Macky sàll bu nekki nit mën nañ ko baal mu dem ci jàmmak ak waaye ñoom ñoo la war a gën a xam ne billaahi wallaahi taalaahi Macky Sall du def troisième mandat moom lawul moom dafa leer xanaa ci lenn mu ne day jàmbaarloog Sénégal yi di rey di rey di te loolu bu ko defee moom du ci mucc ndax àdduna bi nu muy doxee léegi cour pénal international ak américains yi ak français yi ñëpp àdduna bi teg la bët dootuñu bàyyi benn président muy jàpp di rey loolu amatul fenn amatul fenn rey nag yomb na jël Moussa Fall teg jël ay nervi dugal leen fépp ah di dàq ay policiers di dàq ay gendarme ñu dégg ay ay Fulbert Sambou di dee ay Didier Badji di dee loolu yomb na rey rey nit yomb na mais toog ci dëkk am jàmm ba nga rey nit loolu nag moo yombul kon Macky Sall nañu waxante moom ci jàmm ak salaam du mës a génn wax na day def troisième transporteur yang ini di waaj grève accident yi problème yi day gëna yok ci Macky Sall même ñu bu ak Macky Sall Wilane PS génn di ko dal di wax ne du def 3e mandat Macky mënu def 3e mandat na gëm Yalla sëriñ yi nak am nañ ci responsabilité bu mag Sénégal bu takké di nga di nga wax Mister Shake waxon nako waaw ndax ngay bàyyi Macky Sall muy def lu ko neex nga gëm rek nga gëm rek ni muy tejj nga gëm dëkk mi nak bu takké ñu Sonko la wala ñun ay ay ay nit fital yi Sonko kenn du ko yóbbu procès wax yëpp loolu la maa ngi dégg Mollah Morgun démb muy def live am di wax transporteur bu leen grève dugg fi gi génn fi Mollah Morgun loolu du sa du sa cër transporteur yi bu ñu waree grève dañuy grève pour wan Macky Sall ne ko secteur yëpp dinañu grève bu waxee waxu troisième mandat lii lancement rek la est-ce que yéen may dégg doo toog fukki at ak ñaar fukki at ak benn defaruloo benn tali ah quatre voies nga waroon def ñeenti yoon oto yu màgget yi génnewu leen nga bàyyi ba lu mat téeméeri nit dee nga ne nag léegi kenn dootul chauffeur yi dootuñu daw guddi dootuñu def dal chauffeur yi dinañu grève kay te grève chauffeur bu tàngee après ñeneen dinañ jëlaat di grève dinañ jëlaat di grève ba troisième mandat moom Macky Sall du ko ñeme wax parce que bu ko waxee rek dëkk bi moom dafay changé ba faw gars yi laaj leen partagé leen abonné Mister Shake ba beneen ñu defal leen vidéo jërëjëf Cheikh vive le président Sonko vive yow askan bi vive le Sénégal ba beneen ñu defalee vidéo merci